salaamaaleykum tout le monde Mangi, ngi maa ngi ziar ñep di bëggee ñëpp bëggoon def ben ben explication bu gaaw rek seen fait Abdou Karim Gueye activiste membre du mouvement du Dëgg alors li jitu d'abord, moy man damay nuyu ñep quoi di jéggalu ñep parce que olof day wax fa yow yegg du man éggu fa te instant yi gare, yi nekk ci guerre guerre médiatique communication bo xamni dañuy dénigrer waate di yaq di wax ak yo xamni dara leeru leen si man dama bëggoon rek pour expliquer mu ñu comprendre carrément li tax man ma refusé na man signer ay sous contrôle judiciaire parce que dama gëm ni man gisuma sa raison d'être.

donc quand quand le président se joue de la justice ñun dañu war a taxaw ne ko déedéet te loolu bokk na si li koy wane quoi beneen bi mooy euh, man samay bay naa Gueye ak Ousmane Sarr ñu ngi ci kaso bi nekk samay frère yoo xamante ni man defuñu dara lu dul taxaw rek ne libéré Pape Alé libere libéré Karim Xrum Xax libéré Cheikh Oumar Diagne juste libéré ñu jël leen tëj leen ci kaso bi defeere leen ñu defeere leen yóbbu leen parquet defeere leen tëj leen ci kaso bi xaw ma luy seen soor man duñ ma gën a gore man man nek man ma génn bàyyi leen si kaso bi te ñu ma doon xeexal man ma ñëw taxaw di signé ay liberté provisoire di génn di di dox ci dëkk bi nice ay nit di xeex di xeex di ma xeexal ma dem mel ni comme si de rien n'était man loolu du ma ko def léegi nag justice dañu bëgg mu indépendante mu indépendante dañ koy xeex te xeex du yam ci ay wax rek ni ñu koy jëfee mooy il faut sénégalais bu nekk comprendre nak nga war a xeexee ñu fexe ba justice bi indépendante pouvoir judiciaire nekk fi pouvoir exécutif taxawee ne pouvoir législatif taxawee ne ku nekk am sa dooley bopp loolu mooy état de droit loolu mooy république te loolu moo tax man sous contrôle judiciaire lan lañ def ñun ba signé sous contrôle judiciaire lan